ñooñu mu tudd na ñu ngi ñuy jiitu ba fàq dina ko xanaan te ke leen fa yóbboo mu taalal ay loxo loo wax nañu fàttaliku ñëpp nag ci borom gëstu yi wax nañ ne ñetti liix laaj kaamil la kaamila kenn ku ne ci ñun bu defee ñetti xul wala waxat kon kaamil yi la li sakkante bay ñu def loolu ci ndigalam ak ndigali kilifa yi fi nekk mu jàng fatiha bil basmalati bismillahi rahmani rahimi bokkul ci fatiha bokkul sax ci alquran jiitoo na bi Moustapha juróom-ñaar jun juróom-ñaar fukki junne at ak ñeent kon dañ ko def tabarukan waaye bokk ci boo gisee coow li bari ci ku ko jàllee ci ko jullee ci farata sib nañ ko nangam nangam moo di loolu te it day tax nga gëm ne bismillahi rahmani rahim bu fekkee dañuy jàngalu ne fatiha bi basmalati kooku dafa bëgg nga dalee ji ci bisi bi mais bu ne fatiha rek alhamdulilahi rabbil alamin rahman rahim malik yawmi din mooy fatiha moom nag bu àndul ak basmala dafa dal di niroog xorom njëkk boo ci refee basmala bi nag doole ji dal di ñëw waaw dégguleen ñaare ku dugg gaal mbaamu dugg oto mbaamu war fas ñaare muy muslu lu mu wax bisimilah mu jaraha baax na ma jaraha baax na wa mursaha nag mënula baax déggu leen ñi di ko wax ku ñu wax ne moo waxoon wax boobu naax diggante naax ak Muhammad yaatu na te que booba jamono nag looloo amoon kon kilifa gi ñu jàng loolu yéen a wàllu ci sunu wayjur ak wayjuri jullit yëpp ak sunu bopp fatiha moo daan ak basmala ñetti xul wallaahu tëjëk salaatu ala nabi boo iman bismillah
يأتوك نبيا يا رسول الله كنزل كنزل يمنو يمنو كنزل كنزل يا رسول الله كنزل كنزل كنزل كنزل يا رسول الله كنز الغرم خير المرسلين كنز الغرم آه كنز الكرم مولانا من هذه الأمم لبريئته آمننا وتيامنا فرحيق لنا لجهالة تبارك الله أو يجافيكم عن الإسلام غيره وعن الطريقة ميرة مجرد معنى فالله يجاكم بالإسلام خيرا وبالطريقة ميرا ميرا ak xayraan dañuy jege ne luuxut waaye ñoo bokk mu ngi mel ni rek kasiran ak abiran kaf googu nga soppi ko biir kasiran abiran benn la nii rekk la as góor daal bu yëgee taraang di jóge ci nawleem war naa jéem a góor góorlu ba noo nawloo ba xam ne daf ko ëpp doole waaye kiit as góor la rawatina mu jóge ci sa borom nii la 31 décembre 93 ci heure bii ci fii la ñu fekkoon ci nii la ñu fekkoon ci kii la ñu fekkoon dara soppeeku président bi mu ne alhamdulilah rabbil alamina naa sama xel dëgg-dëgg war na maa ngi nuyu nag kilifa yi ma fi fekk yépp yu góor yi ak yu jigéen yi imaam yi sawaayaa yi ak imaam yi masajid yi ak imaam yi jaamia yi ak ayima yi ñu ngi leen di nuyu nuyu jullit ak moroom te taayatan mubaraka min indilaay rek la war a doon di leen di tam ndokkel ci kaa liggéey bi rafet gi mu rafet ak antu gi mu antu te baahir xam naa ni baatin bi incha allahu ni lay mel ne yëf yi li muy bari bari ak jëf yi yëf yi ay yëf la jëf yi ay nit la benn lu lu jóge ci yàlla jëm ci ci yow wala lu jóge ci yow jëm ci yàlla ñaari ñaari yëf yooyu rekk am minhu subhanahu wa taala làkk wa min ka loo jalla wa ala jëf ji jóge ci yàlla jëm si ci yow wala ji jóge ci yow jëm ci yàlla ñi am xam-xam nag dañ ne amaa ngor ba bi ngay yónnee yàlla na rafet ndax dañ la koy delloo ëllëg dooreel it ba lu mu dóor ci sa kaw mu neex la sama kaane miin ko loolu def ci loo mën ci taam wa maa kaana wa maa lakk minhu def ci loo mën ci muñ ndax man utiya وذكر وابتلي فنظر am na jaam bu fekkee sa ndam la mujjee waxal tëdd boo set mu jëkk wax ak sa ndam sa ndam dina yëg na jaam bi yëg na ne am na sang moment bi ci bi lu mu yaa yaa dugg génn wax waxi ba dara du suñu tëdd da ngay dal di julli géeyee nelaw yi kon sa borom nga mujjee waxanteel dépense yi lu mu teel teel da ngay julli suba kon sa borom nga jëkk a waxanteel koo xam ne sa borom ngay mujjee waxanteel nelaw boo yeewoo it sa bopp sa borom ngay mujjee wax waxan moom ngay jëkk a waxanteel yaa ngi ci yoon yaa ngi ci yoon fi jëf boo xamee ni mbànneex su tuuti la am ak du muy yàgg kenn waru ko def ca jëf joo xam ne coono bu tuuti la am ak sabaa nga juddu jeex satan satan moo benn amali ñaari différence yi ngóob jëf joo xam ne ndem bànneex la bànneex su mu tuuti la lu muy jural ci duma nag day sax dakk dakk du dox ak jëf joo xam ne ji ndem coonaa nga ci itam lu tuuti la teraanga ji nag du dog ba ilaa yu ma xeex loolu nag ci ngeen nekk trente et un décembre quatre vingt treize ñu daje fii ngeen def jëf ji rafetal pàcc bii la kenn ku ne gedd lalam te te te jaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون da ngeen bëgg afaman kaana muminan ma def ko na man ka man kaana fasiqan du ma ko def gars yi kat daaw ca trente et un décembre noonu nañu dañu bëgg yónnante bay ba xoytee tànt taal ay làmp daje fa ba bërsëg waaw kañ nañ leen ëpp nag ba trente et un décembre quatre vingt treize ñëw ni muy defaat bu ñu ëpp woon nit dellu si fekkaat ni ci li ñu bàyyi woon diggante bi daam ba daam gi tasee daaw ba fii nu toog amul benn jamono joo xam ne ñëw nga fi lu wër suñu borom bind na jëmm ju niroog yow di uyoo saw tur di sikkar di sabbaha ba ba ngay dajeeg moom kii amul nu mu mel ñun nu mu dafa yàlla war ko xet ñu ngi fi rey léegi leen dara fu mu leen yóbbu ñu ngi fi bàyyeen bi def loogu leen dara pour bàyyi leen fi jëf dafa jëf jëf dafa jëfandiku rek ci coobareem yomul làkka wa yomul alayka séddale na doomu aadama teraanga loo wax na ko waxati ko waxati ko takraaru ko wa laqad karramnaa bani aadam wa hamalnaahum fi lbarri walbahr am na waxit wa fadalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdiila tafdiila ama sàlla bu bu diggi bëccëg gi diggi bëccëg midi jëm une heure mooy huit heures indi jarañ bi am ci jarañ yooyu nen buñ leen buñ leen waasee ba mu set butit ya ak caaxoñ ya kuñ koy jox muus ya nen yaag gën woon ak ku koy lekk nit ki boo demee tool di bay ba gerte gi ñoo xoom nga déqi ko gerte gu ñeen boobu nga mën cee bàcc mbalu ci ku yëy gerte ga la fa siy jël ngooñ bi waaw kay sa naaru góor sa naaru góor wu rafet wii ci kër gi wala sa nag wu rafet wii ci maanaam wa fa dal naam wa fa dal naam ala kadiran wa fa dal naam mooy fexe naa ba li gën ci ginaar gi ñoo ko jël buñ xëy dañ ko tuuri li gën ci ginaar gi ñoo ko jël dafa dal naa am li gën ci jën bi ñoo ko jën dafa dal naa hum li gën ci dakk bi it ñoo ko jën ndax bu bu meew mi génnee nga jariñu yuxruju min bayni farshin wa dammin labanan xaalisan shayxan li sharibin yàlla ne war naa doy tegtal lu ne gàtt gàtt xel ci dëkk gi ma dëkkee génnee meew su may jële meew maa ngi koy jële diggante sébbalit na sébbalit mel dafa weert ak lan deret na deret mel dafa xonq meew génn weex tàll te yàllaa ngi fab gàtt bi bu wëttee ba ñëw di duñi boo ko reyee portement am yooyu ngay gis portement nag bu nekk ak li ci yàlla liggéeyu ngir duñi ngir mu def ko deret mu mayaat si dit yi doole gàtt bi mën a wutiwaat bële ngay def neefara pour mbàq gi feex mu mën a war a foraat waaye nag bu ngay génnee soow mu weex tàll jële ko ci diggante sibbirit mu wert moomu ak deret mu xonq moomu moo cee génnee soow te kat dama daa yëgal ne booy ratt saw nag naan cur cur bën bën yooyu nga xeeb ko ba yàkkamti sab saatu na tat tit ca kanam def nga musiba dootoo gis meew nag cëp direct muy cur curi nga ne li muy sottee ko xeeb naa ba yàkkamtu yóotu ca kanam sa saatu na ko toppit dootoo gis meew deret rek ngay gis man maa maa génne min bay ni farchin mu wert moom wa dammin mu xonq moom rabanan soo mu weex moom saayiq li sar bi bàyyiwul teral na wala xad karam na bani aadam sëriñ su baax si ma fekk fi ñuy ay alim mën nañ cee waxtaan ay at te du jeex da nga def ne lekk gémmiñ neex na lekk gémmiñ far si gémmiñ di ko nàmp nii ni ñoom far si defe kin baax ay baaraam lañ la wutal ak tënk nga pakkata ba mu jekk imaamu Malik yi ñu ne ci ngërëm mën nañoo def mos nañoo def benn invitation bu rëy faaba jugut ñi ñiy servi ku nañu jox la paaka fourchette kudd baasi ci moom moom lu may doyee paaka lu may du def fourchette lu may doyee kudd xanaa jàng na wala xada karam naa bani aadam ñu ne ah kay mu ne yàlla gisoo ni mu liggéeyee la tenk lii ci digg bi yëgal ne la kudd la baraam yu ràcc yi fourchette la loolu ci cat bi paak la subhanahu wa taala loolu siiti xeer boo ko sànni ci jafe ji mu rot dal ci sa kaw yàlla dimbale doomu aadama ci xamam ba tàggatoo ko mu mën a yëkkati weñ goo xam ne xott la rek mën naa nekk cent tonnes avion tax may wax mun a bëpp ba pare ñu di ko safaat ba safaat lu toll ni moom mun a fut det jóg ànd ak moom dem waaw lam na am fi bat pal baax géej gii boo sànnee benn xeer dafa war a ji waaye paquet ni mu tollu kaar ak wa ak ak poids ñu dellu ko sarse ba mu fees yooyu yëpp nett na ci alxuraan ne maa leen ko defal pour terale yeen ko pour ngeen xam ne am ngeen borom téere bi bi mu koy ubbi Amadou Sall daf ne xalimba octobre bindal xalimba gi ne ko yaa rabbi masa octobre mu ne ko bindal ne waaw waaw parce que donc ku ne def fatiha astafirlah salaatu fatihi ñu dellu ko nabi addiya jaarlu ko ci sunuy sëriñ gis nga Amadou
borom di xaar ci barke bu leeru seydil wujudi wa alimi suhudi li mu digganteeg doomu aadama rawatina nag bi di jullit jàngal Ali Imran Ali waaw jàng na
juróom fukk aar ak ñeent nga déglu yàlla mu wax waxam doy nu ngëm mu giñ teg ci ngëm bi war naa doy ngëm mu def taw kiit teg ci ci benn baat benn baat mu ngiñ nekk ak u càqeex nekk ca noonu taw kiit nekk ca ci ku toll ni yàlla di wax wax ba mat naa déglu te am na solo laqad manna allah waxul alal alamina déglu bu baax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina bii nag génne nañ leen ci ay alquran yi yaay waa joo dégg léeg-léeg ci ne bi rek la concerne ak njabootu gi ci këram yaa ay waa joo dégg ñu doon dund te ne ci réew mi moom la ñoom moom aay ba waaye nag léeg-léeg yaa ayuha ñëw wala damir ñëw wala fiirul amar ñëw bu laaf nit ñëpp xam nga baat bi lu woon lu mu doonoon man na nii mu naa yàlla ne su ngeen ko yëgoo it baaxe naa xeet bi ñuy wax nit loo gis yàlla bind ko ñaar yi rekk a tax pour nga waanu ca pour nga waaru ca wala nga jariñu ca am na ñetteel nag bindeefam yépp lii pour nga waaroo ca nit ki def lii mën na lu ne lii pour nga jariñoo ko mu ne man na baaxe na mu ngi bu ko sidda daf ko taxfiif man na baaxe na ku baaxe laawu yàlla ñan la baaxe alal muminina waxul nag ala alamina waxul ala naasi alal muminina président daf ne lu rëy ak ñi mel ni yéen di def jëf ji nga diglu aye ko bu baax maa ngi jàng man na mii mun a baaxe na yàllaay wax ku baaxe laawu yàlla ñan la baaxe alal muminina ci jullit ji na mu leen baaxe ibaasa ba mu antine yónni rasoola ndaw minum buy nit ni ñoom déglu de déglu de man la fiirloon man na mu mel ni borom bi dafa jaajubaat wax bi door ci xat muy xat man na xat gi xatub tax xeex la soppi na xat baat bi baat bi poids bi mu amoon yokku na xat gi xatub tax xeex la ñetti laa firi mën na baaxe na laawu yàlla dootoo ko man ba xat ga tax loolu wax dégg nga xat man na ci dëgg dëgg baaxe na mu dem mu mel ne dafa xeeb wax bi indi laami xas mu nag laam gële ca kanami xas xat ji ngiñ la laamu ngiñ xatuk tanqiix noonu taw kiid ci mag mu toll ni yàlla billaahi la wax billaahi xat man na baaxe ne dëgg dëgg dëgg laawu yàlla alal muminina ci jullit ñi ibaasa am na benn bani israil fekkante rul na bi ci àddina sax mais dem na àjjana ci ramu Moustapha ndax dañu ubbi tawreet di ko liir ka ko yoroon ne ko kii mooy ture ci nga xam ne moom la yàlla yu mujjee yónni seydil wujjow di ba alimi suhudi mu fab loxoom teg ca fóon ko ba mu dee xam mu dajaloon ci jamono ko muy nitu yàlla dañ ko seetaan niiw ba bëgg koo sànni ngir la mu nekke woon waaye suñ borom day leen dem leen xam naa li waa ji nekke woon waaye su ma soppi bala laal turam laal ko ci kanamam fu may jaarati ba buggal ko ku bëri yoon mu ne la am naa tawaabu atuubu liman taaba danga la jëkk wax maa tudd baalakat bi maa tudd baalakat bi lu lu lu ñawteef yi bari bari bu ngeen baaloo ma baaleen benn boykat woy na woy am benn baat bu am benn biitu bu am solo ama saaxu sàlla war nga koo mën dafa wax ne walaw anna firawna lama taqaa wa qaala qawlan aziman anaaba wastaxfara la wajada allah rahima nee na firawna li muy saay saay saay saay aw waxam ba la muy for for ma alimtu lakum min ilaahi xayri su dellu woon ginnaaw tuubaat boobay di yàlla jéggal ko lu mu koy lu mu koy jëriñ du mag yi mu koy jëriñ mu ubbee ko nag saar wi boppam kaamil bi bisimilu ci tegu laayi turu jàmbur la mooy yàlla moom la ubbee téere bi nu mu ko tëjee doomu aadama mi ne jinnati lu ci tegu wan naa si ndax dara tegoo te ne ci ok sàkkal nu place ak yëg nu ak teral ñu ngir rasulillahi moo tax mu tàmbali téere bi ci boppam comme moo ko moom waaye nag terminé wu ko ci jinne yi déedéet du ci siyaatina ci nit la ko mujjee waxe mi ne jinnati daal war naa si dootoo dégg daa góor gu baax kooku nag di siy di bu jëw di ko alimi suufu di wax naa barki di mba xaaji abdou xalifa bu baax bii leen doon ñaanal ak mboolem xulafa aw yi kilifa diine yi bi mu ñëwee Tëngéej nee naa ko man gis naa ci téere mu wax ne aalim bu rombee dëkk enneekuwul jàmm santuwul nuyoowul may ñu ko dox mu jàll rek na nu dem dëkk booba armeel ya néew yi ñu doon buggal ne ngeen baal ñeent fukki at yaa ngi fekk nga ko dégg rawatina nag bu jàmm sante rawatina bu nuyoo rawatina bu tegee ndabam ci suuf yàlla na ko fi yàlla doole yàq moo kilifa diine yëpp ñu jàppe lislaam waaye nag kilifa diine yi war nañ leen a ñaanal de war nañ leen a ñaanal de ndax mbaal daal bu dogee ci kaw géej beteex yi diig bu soo ngee tëmb rëbb ga teer ka téye rëbb ga di kir kiri di kir kiri ba ñu dellu si wallu ko mat na ñoo ñaan te Moustapha sallallahu alayhi wa sallam luñ ko defal ci teraanga ëpp na ko yàlla yàlla di naw yàlla di naw yónni gi mu ko yónni naw goo xam ne gi alquran la kayit bi mu dee alquran du naasix du mansuux mu kam la a ba ja da su noo aba sedde xam nga ñaar loo dugg waaw kañ moog bu tubaab defe naa fënt nañu aba ja da awa sa ataya ñaata la sunu bos
vingt-huit
kañ ñaar fukk juróom vingt-huit
bu óolu toog rek ñaata la luñ ngeen ëppalee ñaari araf yooyu lu mu jur gëm de ci nga gëme dekkal ak ñu fay la foofu la ñuy rawee gëm dekkal ak ñu fay la suñ borom nag pour sédd doom aadama yi ngir Moustapha dafay jàpp abba seede ab sunu abba jàdde boobu dokk ci digg bi luy génn wàllu went bi quatorze
toog ci turam na génn fii fexe leen mu génn fii araf ak juróom-ñaar am na am lu ñuy wax arfu sulmaaniya ak nuuraaniya waaye pour fàttaliku nit ci bëgg ko yàlla bëgg dafa jàpp abajada bi sédd koog nun jël genn wàll gi jox nu genn wàll gi quatorze quatorze pour ñun ngeen déglu bu baax de sunu quatorze sunu bosom bi nag mu xaaj ko ci digg bi lu muy doon sept